Euh, tay dañu ñëwoon ci benn cérémonie ci turu ministre de l'éducation nationale ak suñu partenaire de la JICA ak du Japon ambassadeur de Japon pour réceptionner matériel bi nga xamante ne dañ ko am ci projet bu mag boobu nga xamante ne Japon mi ngi koy defal Sénégal di ko ko mu commencé ci 2023 bi ñu nekk ci première année bi donc ñu def ay réalisation importante importantes tey ñu def cérémonie pour njeexital at at mu njëkk bi mais aussi wane lépp liñ si def ci projet boobu ci objectif yi ñu ci fixé woon ñu gis ne lépp atteindre nañ ko maanaam dañu waroon euh, renforcer ci trois axes stratégiques paquet bi maanaam naka la ñuy gën a ñongale njàng mi ak njàngale mi gis ngeen projet bu mag bi nga xamante ne ci mathématiques yi ñu ngi koy def te programme bi moo ko moo ko jàppale ñu xool aussi ne ay support pédagogique ci qualité boobu ba léegi def nañ ko ci enseignement moyen secondaire ak enseignement élémentaire gis ngeen tablette yi ñu fi jënd matériel de laboratoire bi pour promouvoir enseignement science bi dafa am solo lu trop nekk priorité ci Sénégal mais aussi ay livret yi nga xamante ne dañ koo def ay cahier d'exercice pour que suñu xale yi élèves yi mun ci gën a mun a jongal seen jàng donc loolu ci axe stratégique qualité bi la bu ñu ñëwee ci gouvernance bi gis ngeen aussi projet bi programme bi ni mu jàppalee euh, projet académique yi maanaam mi ngi jàppale académie yi Euh, moi, inspection de l'éducation et de la formation moi inspecteur de l'éducation, inspecteur d'académie, académie ñu ngi leen jàppale ci gouvernance secteur bi au niveau déconcentré maanaam naka la ñuy demee en projet naka la ñuy un pilotage performant pour gën a mission yi ñu leen jox ñu mun ko gën a mun gis aussi na projet bi am nañ ci ay matériels yi nga aussi ci ci numérique bi. donc ci domaine numérique bi gis ngeen matériel yi ñu ci am tablette yi parce que léegi ministère de l'éducation dafa orienté résolument ci numérique bi pour amener à une transformation du système maanaam pour ñu mën a dem soppali njàng mi mu gën a njong mu gën a adapté ak euh, li xew léegi mutation yi ñun dañoo dugg léegi ci domaine euh, numérique bi gis ngeen nag matériel yooyu yëpp nga xam ne ñu ngi koy jox xale yi pour ñu gën a mun a def seen njàng ci école yi pour ñu gëna mëna suivre njàngale biñu ñu leen di defal ci l'école bi ñu jox leen ay njumtuway njumtuway yu am solo muy ay des milliers de tablettes yi nga xamante jox nañ leen ko ak ay ordinateurs yi nga xamante daf leen di permettre ñom ak seen i kat donc ñu gëna performant ci li ñuy def. <coughs> Le Sénégal doit aller encore beaucoup plus très loin et j'en suis certain que le Sénégal peut y aller. Pour cela, il y a lieu d'investir à l'éducation de la Future génération des jeunes Sénégalais, Sénégalaises <clears throat> qui vont soutenir et conduire le Sénégal au-delà du Sénégal émergent. Dans cette optique, le Japon est fier de financer ce programme de prêt pour le secteur de l'éducation. Cette importante initiative du gouvernement du Japon qui vise à soutenir les efforts du Sénégal pour améliorer les performances du système éducatif à faire l'objet d'un accord entre les deux gouvernements, signé à Tokyo en décembre 2022 à l'occasion de la visite de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall au Japon. Il s'agit d'un poulet de 10 milliards de yens japonais, soit environ 42 milliards de francs CFA accordés au Sénégal sur trois ans. Ce prêt doit permettre au ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA, de mettre en œuvre pour plus efficacement le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence éducation-formation.